wala seen suppa yi wala li nga xam ne mooy yar ganaar yi wala bépp façon mu togg boo xam ne rek maalo ngay jëfandikoo seen begg jasmin parfume rice bi lañ ci taamu ba tax na yéen jigéen ñi képp ku bëgg a teral sa jëkk rek wala am di jàmm yi muy hôtel seen restaurant yi ñëpp begg jasmin parfume rice la ñuy jëfandikoo ndax mooy qualité bi ñu taamu ak begg jasmin parfume rice da ngay am lu sakkan lu bari asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bu neex li muy dégg ci réew mi loo déggati maas. tri ji. Gamzel dem na tri ji. dafa yéex a ñëw waaye gaañ yàkkamtu woon nañ ko de. maas a ñëw. te doon qualité yéex a ñëw te ànd ak speed bi ñu soxla ñu segg ko seet ko ba mu baax nga xam ne buñ ko tegee kenn du loo ci waxtu. te du am ndax yaatu gaa tax am xat-xat. dégg naa wute am na ci koy def dañ koy seet segg ko ba mu baax maas ñu teg ko ci table bi ñëpp ñëw ko. waaw ñaata façon ngeen am nag. am nañu ñetti façon maas. Mhm. bii. mooy tri ji business bii mooy dugg ci internet café yi bii mooy dugg ci compagnie si mag yi bii mooy dugg ci hôtel si mag si nga connect ci 20 people ñaar fukki nit te du xat bii mooy tri ji leeso bi bii nag moom pour kër yi nga xam ne dañ am famille bu ndaw rek mun nañ koo jëfandikoo pour ñi nga xam ne ñoo yore business yu ndaw yi itam mun nañ koo jëfandikoo tri ji partner mooy tri ji dëkkandoor laa ko tuddee yow rek sa kaw lal rek yaa moom rek mu ànd ak nag ak qualité bi gën ci qualité dama la wax ne la lii doo ko dugal ba pare di xaar bay xaddi bay bobbali balaa muy agsi booy dugal boo ko ni cuxuñ mu ne la maa ngi billaahi tri ji ngeen soog a agsi yàgg ngeen ko dégg waaye bii dafa wuteeg tri ji yi bii tri ji mooy gamsel speed bi gaaw na qualité bi baax na dina jël nit ñu bari foo soxla rek def ko fa tri ji ñëw na ci gamsel réewi Gambie déglu leen ma de jóg leen yéen ñépp nag dem ca gamsel uti tri ji bu kenn manqué bu kenn des na ñëpp dem góor jigéen joxu leen gamsel a ngoo oote na cey tri ji Under the distinguished patronage of His Excellency the President, Chair Professor Dr. Alhaji Yahya AJJ Jamin, the organizing committee of the Miss 22nd July Scholarship Pageant proudly presents the finals of the fifth edition of the Scholarship Pageant, taking place on Saturday, December 7, 2013 at the Penchemi Hall Paradise Suites Hotel. The scholarship pageant is geared towards promoting excellence among girls in line with Vision 2020 for sustainable growth and development. The pageant is a display of academic potentials, talent and beauty. The theme for this year is promoting positive attitudinal change for sustainable development, the role of the youth. Support the Miss 22nd July Scholarship Pageant as the scheme will benefit all and sundry. waaw xaar ma nag ma ñëw yóbbu la Banjul ndax ñu naa warga Banjul warga Banjul waaw waaw warga Banjul dafa am warga bu tudd Banjul dafa am warga bu tudd Banjul ñëw fii ci réew mi bees ni ko xaran ñan ñoo indi fii ci réew mi andaa nag el mi daan indi warga yi ah. seetaat ko segg ko defar ko ba mu baax mu tuddee ko Banjul indi ko fii ci biir réew mi ah dama ne ñu indi mu neex de warga Banjul ñëw na ci biir réew mi dàq warga yi gën a neex warga yi dafa naana boppam ñam leen ko boo leen ko ñamee tax xam ci ku réew yi Banjul jóg leen nag indi nañ leen seen warga lal na nag lal na defar leen warga nga bànjul ñëw ci réew mi defar ba mu baax yéen a ko moom cee war nga bànjul naan leen waay eh waay matters. Alliance Francaise, with the support of GRTS and the Association of Gambian Comedians, brings you Dakar Comedy Club. Date Tuesday 19th November 2013, time 9 p.m. at Alliance Francaise. Tickets $100 C and $50 C for students. Side entertainment by the Fatalo Music and Dance Group. QCell's 4G internet service is the Gambia's fastest and cheapest 4G fixed wireless internet. With QCell's 4G, you can access the internet at unbeatable speeds on your laptop or desktop computer. You can also use your mobile or tablet to browse the internet via Wi-Fi. QCell's 4G internet can keep you connected either in your home or in your office. For a limited time, get 50% off regular equipment and 100% off corporate equipment, as well as free installation and free QCell credit. For more information, call 333-3253 or 333-3104. QCell 4G Internet. Fast, affordable and reliable. QCell. SUNY Bus. The Gambia's Quality Network. la la la